والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين والنهي ترى موي استدعاء الترك ساكو أكباي نهي موي ساكو تينكي بايل نانغم nahyu ci sharia bil qawli yàlla moo tere nangam moo ko wax ci alquran wala ci xadis qudsi yonentu moo tere nangam moo ko wax ci xadis bii bu wér waaye yonentu def na nangam rek nga bëgg ta déggé ne loolu luñ nangam bi dañ ko tere wala kon day tere nangam déedéet nahyu la yakunu bil fi'l fala budda min al qawl moo tax tarki bil qawl mimman huwa duunahu tukkee ci ko xam ne huwa moom duunahu maanaam kañuy tere na féete suuf ka koy tere ci lay door a tudd naxyu waaye bu dee kii wax moo féete suuf ka muy waxal loola duwaaw lay ñaan buñ tollooyee iltimas xam nga ko te ala sabilil wujub ci yoonu war liñ sàkku ci yow ne la bàyyi ko nga war koo bàyyi loolu mooy naxyu ala sabilil wujub ndax am na naxyu ci alquran wala ci sunna ak ci lugha arabiya mutlaqan yo xamne sakul ne da war nga bayili ala ala al wujub lutax mu tuddu ko fi dalay wonne amna am yo xamne dafa ñëw rek li tanzih wala lil karaha la tasalu an ashiya in tubda lakum ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ak yu mel nonu legi nahwi gi nga xamne nak amul ben firnde buy wanane euh tere ci bel la goga moy euh nahwi go xam dafa ñëw ala sabilil wujub dañu jàpp ne li luñu wara bayila a bàyyi la alquran moo nañu wa ma aataakum rasulu fa xuduuh wa ma nahaakum anhu fantahu yoon lu mu leen jox jël leen lu mu leen tere bàyyi leen wa ma nahaakum anhu fantahu kon lu mu tere rek day war ñu bàyyi lum تري day war ñu bayiko legi nahyu amna ben siqa ci lu arabiya nu ñi tere dañuy ya'al ba tere ba ne yalla tere na nangam ينهاكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين يتبو ها؟ innama yanhaakum allahu an alladina qaatalukum yàlla mi ngi leen di tere ñan alladina qaatalukum ñii xeex ak yéen te dara warul ñu xeex ak yéen lu dul diine seen diine lañ bañ fi diin kon nax wi dana ñëw ci yaxal baatu tere gi yàlla tere na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yowmi alfitri wa yowmi annahr loolu xadis boo xam ne rawaahu albuxaari wa muslim yonentu tere na woor bésu korite tere na woor bésu tabaski kon yaal baatu nax yu waaye bu dee ci siixa ci wax arab fi'lun mudaari'u bu ñu jiital ak laa annaahiya laa tafal bul def bëri na ci alquran wala tusrifu yàlla laa yuhibbul musrifin ولا تقربوا الزنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فلا تظلموا فيهن أنفسكم لا لا لا برنة القرآن الكريم لا الناهيه laaj yi nga xam dafa ngir traaj loolu mooy siixatu nax ci luxa arabiya waaye nag nax yu mën naa am ci lu dul laa nangam wax naa ne léegi yaxal baatu tere ga wala ñu ne xaraamal nañ yàlla xaraamal na nangam loolu mooy tere na ko xurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum ila axiri xaraamal nañ ci yéen kon tere nañ leen bu leen takk ummahatukum wa banatukum laa yaxillu wala du dagan laa yaxillu lakum du dagan ci yéen mooy tere nañ leen ko laa yaxillu lakum an tarifu nisaa kërxan loolu mooy nax yu istidaaw tark bil qawli siixa boobu lañ koy defee fi'lul mudaari'u bu ñu jiital ak laa naahiya wala ñu yaal baatu tere ga wala yàlla xaraamal na wala yàlla daganalut ala sabilil wujub bépp nax yu boo gis ci charia alquran wala su wér ñu itlaaq ko amul benn xarina buy wane ne lii tere sib rek wala nangam la xamal ne loola tere waral la day war ñu bàyyi loola loolu ngay njëkk xam lañ tere moom lu xaraam la dañ ko war a bàyyi lépp luñ war a bàyyi rek mooy dañ ko tere tere loolu kenn werante wut batay nahyu yaqtadi at-takrara wal fawr tere nañ la nangam nga ne bayina ko tay kon suba man na ko def dedet ni ko baye tay ni koy baye suba ak gnaaw suba feeg yaa dundu tere nañ lek al lijrim ah, dang koy baye mutlaqan sañu ko lek ben yon yaqtadi at-takrar wal fawr liñ tere ci saati dang koy baye tere nañ ko tay suba la koy baye gannaaw suba déwén déedéet borom la xadri sax neewoon na la du dagan ci mu kalaf muy yeexee tuub an yuaqira tawbata wala yaqul hatta yahdiyani allah fa innahu min alamati ash-shaqa wal walxifwaani wa tamsil basira luñ tere xam nga ni man na am yaa ngi daan def xamugoo woon dañ ko tere xamugoo won ne gën ci lu dul yàlla da xaraam xam nga ne kay gën ci lu dul yàlla da xaraam inna allaha yanhaakum an taxlifu bi abaayikum yàlla tere na leen ngeen di gëñ ci seeni baay nga bàyyi ko kon yaqtadi al fawra lépp luñ tere da koy bàyyi ca saasa kaas bi nga téye di naan sàngara ñu la xaraam dañ koo tere tuural keroog ba yàlla xaraamalee sàngara ñu xëy mbedd madina yi fooy xëpp xasaw ak sàngara suñ tuur ndax yàlla xaraamal ko kenn sañutu ko naan kon mi ngi noonu nax yu daal buñ ko itlaaqee amul benn xarina buy wane nangam yaqtadi al wujub benn wa yaqtadi at takraar wal fawr bàyyi gi day continuer te danga ko war a gaaw bàyyi ci saasi loolu mooy wax ji Ah, léegi nag ah, ci misaal beneen yoontu tere na laa tusallu ilal quburi wala tajlisu alayha bu leen di julli jublu bàmmeel yi nga xam ne yow yaa jublu naa naa naa jàkkaarloog bàmmeel bi julli ngir fas-fas boo am ca borom bàmmeel wala yu mel noonu yooyu ay bokkaale la bu leen toog ci kaw bàmmeel ab bàmmeel kenn du dox ci kawam kenn du ca toog waaye nag nga xam ne am na ci charia ay nax yu ñëw eh, la muy tere yeggul ci xaraam yeggul ci boo ko defee am bàkkaar bokk na ca lan laa yamassanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul gis bi yontu nee na bu kenn ci yéen laal sakaram ak loxo nday joram fekk ma ngay tuur ndox waaw kuy tuur ndox bu téyee sakaram ak loxo nday joram ndax day am bàkkaar ah déedéet dont nag lu ñu tere la waaye tere karaha sib wax naa léegi laa tasalu an ashyaa'in tubda lakum ah euh, ak yu mel noonu bëri na ci sharia waaw parce que laa yamassanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul am na xarina bu ñuy wan ne tere gi du tere xaraamal loola mooy beneen xadis waaw parce que xarina ba mën naa nekk muttasila sës ca wax ja naa nekk munfasila ne ci beneen xadis wala beneen aaya alquran benn ñu laaj yoonu saa laal sàkkara mu ne hal huwa illa bidaatun mink sàkkara lan la xanaa du ab cër la ci yow rek ay wax ويدل آه، نهي داي تكلا على فساد المنهي عنه يقو لولا ني تري وون آه، لب لون لا تري بوكو ديفه عملك عمل فاسد لا لا لا يعتد به ترى نان لا جولي تي لول لاب ياو nga julli ta labo ndax julli gi werna fasid salatu ko fasida salatu ko ghayru mu'tada ya ku julli wul yene yam da ngay dem julli wat tere nañ la julli jublu ci lu dul penku wala julli te sutraaloo sa awra nga def ko yaa ki julliwul yéen a yem jëf ju yàqu la te kenn du ko compter wa yadullu ala fasadil manhi am tere nañ la bul jaay sobe boo jaayee sobe bay'un fasid laa yu'taddu bihi ka ko jënd loola nga jox ko muy sobe ta moomut ko na la ko delloo njëggam la jox yow moomoo ko delloo lii fi jàmbur laa yu'taddu bihi tere nañ تك صحنا تك صحنا زي أمول كلفات دي جين مودم ما يبقم كو تك صحنا بغير إذن وليها نكاع فاسد لا يعتد به كن ويدل نهي بيتري على فساد المنهي عنه بخمني وعلى أو بس كي ينتو عنا عريس بغير من عمل عملا ليس عليه أمرنا كيف كو جف جف جو خمني ووتنا سنجرمي dëppoowut ak sunu mbir mi foofu war raddun jef jooju jëf ju yàqu la dañ ko koy delloo te lépp lu sharia tere nag laysa alayhi amru nabi sallallahu alaihi wasallam wala amrullah kon ku ko jëf rek mardut lay doon tere nañ koy jaayloo moomul bés boo demoon jël àll jàmbur jaay ko loolu bay'un fasid lay doon aywa léegi mu delluwaat ci amru baabul amri loon wa nax yi léegi mu ñëwaat ci amru tuuti rek ne lan ne wa taridu danay rot siixatul amri tëggunu amru ndigal defal nangam waaye wal muraadu bihi lañ ca na moom rek mooy al ibaax daganal day wan rek ne dagan aw wala ñu namm ca at tahdiidu xuppe aw wala a taswiya yamale aw wala a takwin formé kon siyaqul amri yan jangon jàngoon léeg-léeg danañ ñëw lil ibaha wala ne lii lu dagan la rek waxon nañ lu bari ci amru bu ñëw ba'da nahi bu xam-xam wuti ci ñu ne day tek la ibaha waaye la wér te wóor daal amru ba'da baxda nahi day delo mbir ma ci lam nekkon qabla nahi am déet julli dafa lan war yow mi amé deret yi wala nifas ñu ayé la julli bés bu sa deret jeexee julli gi day lanaat day waraat dañ la koy digalaat mu waraat la rëbbu xiif dem rëbbi lëggoo añee loolu dagan na léegi nga xarmal xaj ñu ah, xaraamal ci yow rëbbu aaye la ko ne la wa idaa xalatum bu sa xaj jeexee sañ gaa dem rëbbi waaw rëbb gi ndigal lii da koy dagan ndax cosaan da dagan loon ilaa axiri maa ko kon mi ngi noonu loolu rek la ak ak yeneen ak yeneen ak yeneen am na amar yu bëree bëri ci alquran yoo xam ne xarina moo wane ne euh, du lu war luñ sopp la boog mooy def moo gën am sax boo xam ne moom li tahdiid ngir lan la xuppe i'malu ma shi'tum def leen lu leen neex rek fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur kum neex weddil yàlla digul kenn nga wedde day xuppe rek defal lu la neex ba ñëw fi rek baax na qul tamata'u topp leen seen bànneex bànneexu leen yéen a xam fa inna masirakumu ila naar safara ngeen li mujj fa inna masirakum ila naar xari la ci ne tamataxu ji amrun li tahdid am sax ci baax na demal rek yow kay defal la neex rek ak mel noonu awe taswiya wala yemale istaxfir lahum aw la tastaxfir lahum Hmm? mooy nga jéggalul leen ak nga bañ leen a jéggal ñooyam fasbiru aw laa tasbiru sawaun aleykum innama tujzawna ma kuntum taamaluun muñ leen wala ngeen bañ a muñ loolu mooy taswiya mooy yamale awi takwin kunu xijaaratan aw xadidan ah eh, kunu xiradatan xaasi in yàlla bu ne kunu nekk leen xirada di ay golo ndax ñoom mën nañoo def seen bopp golo déedéet kon sàkkuwul ci ñoom ñu def ko waaye li takwin wane ne amal ga lu yomb la yàlla innama amru ida arada shay'an yaqulu lahu kun fa yakun kunu ki xirada rek ñu soppee ko ay golo kon daal mi ngi noonu am na solo nga xàmmee amru bi ngay gis ci alquran wala ci sunna xol ndax amna qarina xarina buy wane ne li nangama ko tahajjuk tahdid wala lanen bu fekke amul ben qarina dañ ko itlaq nak amru balay tosan moy wudu nahyu balay yu ba lay tra cosaan tark amru balay tosan moy wudu wujubul fi'li nahyu balay tosan moy wudu bu tark